asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu yëkkati nuyoo boobu boole ci nuyoo délégation bi ñu àndal boole ci it nuyoo ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk di taskatu xibaar ci seen coono ak taxawaay ànd ak ñun ci campagne bi am ci taxawaay bu am solo ñu boole leen ci nuyo boobu jël lépp tekk ci sa loxo tekk ci loxo képp ku nekk fii boole si sunu ziar boole sunu mbégte boole si sunu ziar ndaxte sunu kilifa la nu seet si ka nag ci weer bu am solo weer bu suñu borom barkeel di weeru koor di la ziar it ci weeru koor gi di am mbégte di fi ànd ak suñu responsable yi nga xam ni yéene moo tax ñu indi ñu fi yéene mooy ka nga xam mu doon sa kilifa nga xam la ko yàlla may ñu ñu xam ko ak lu muy xat-xat nga fëgg buntam yóbbu fa ka nga àndal pour mu ñaanal ko loolu ku la yéene moo la koy defal te loolu la ñu gis ci ñoom di leen ci gërëm di leen ci sant bu baax a baax comme ni mu ko waxee ñoo ngi ci campagne électorale campagne pour tabb ki nga xam ni moo war jiite réew mi ci juróomi at yi nu jëm te ku nekk xam na ni jiite réew moom du lu yomb ndaxte daa jiite ñëpp te damay yàgg wax ni mënoo bëgg jiite réew te jikko ji doxalin bi doo ko méngool ña nga xam ni yàlla baaxal na leen avant yow la ngay def rek ak la ngay wax rek war nga leen sóoraale moo tax ak lu mu metti metti kàddu gu nuy mën a yëkkati jëf ju nuy mën a def dañ ciy sóoraale loolu ndaxte benn bis dama toog ak kilifa diine gu mag a mag a mag mu ni ma la ngeen xamul yéen politiciens yi mooy télé ñun dañ koy seetaan te buñ koy seetaan dañ koy seetaan ak sunu ay njaboot te tele boo ko dugalee sa biir kër rek ca la muy génne maanaam indil na la gan gi nga xam ni invité woo ko sa biir kër wante télé moo ko fa invité te gan googu bu nekkee ci sa biir saal nga toog ak sa njaboot muy wax la nga xam ni danga koy tere ci sa biir kër tooñ na la ndax dugg na sa kër wax fa loo fay tere te tàgguwula te invité woo ko ni ma kon boo leen dee wax dee leen bàyyi xel bu baax ca la ngeen di wax ba nopp ba koy dégg ak fa muy rot fa muy wàcc méngoog lan fa bëgg ak lan nga xam ni moom lan fa dogal loolu nag moo nu yóbbee lu mu metti metti ak lu mu xat-xat ñuy dalal kàddu yi li ko jiitu it mooy yar bi ñu am ñu yaree ñu noonu doon taalibe kon lii mu wax dafa fekk ni nit ñu baax ak yar bu nu jox ci suñuy kër ñoo tax ñuy taxawaay taxawaay boobu di am jëfin boobu campagne électorale lu metti la wante foo dugg war nga gis ñi nga xam ni ñoo ŋànk dëkk ba te ku xamul jaamaal it dégg nga ko ku xamul it la sunu boroom wàcce dégg nga ko moo tax ñoo ngi gërëm bu baax sunu responsable yi ñu fi indi yow mi ñu fi fekk nag ñu dagg sa yitte yëpp ngay sunu kilifa ñu la ciy gërëm di la sant ci dalal bi waaye it di ñaan sunu borom mu guddal sa fan bu baax a baax may la wér ba mission bi nga am ci lislaam am ka ci njaboot gi am ka ci Sénégal gi am ko ci Afrique bi nga mën ko moteli ak sago kon daal loolu moo doon kàddu yi di la gërëm di la sant bu baax te nga ñaanal ñu ñaanal Sénégal yàlla gën fi dolli jàmm gën fi dolli teraanga jërëjëf. Médecin Déthié Fall ñu ngi lay nuyu nuyu bi sëriñ baa ngi ciy jiitu ak njaboot gi fi nekk yëpp di ci teg professeur drame ak eh, sëriñ bi nu wax léegi ñu ngi toog rakam El Hadj Omar Cissé moom sëriñ bi bokk benn bàyyi ñu ngi toog nijaayam sëriñ si wéeru bu nijaay sëriñ bi ah Déthié ñëw nga sa kër. ñu ngi lay ñaanal yàlla li ngay wut yàlla na ko yàlla jox ci xormaay weeru wii di bala xaq ci weeru koor wi ak tàngoor wi ndax saalum dafa tàng ak heure bi nga ñëw da heure njolloor boobu lañ lay njëkk a jégaloo képp ku nguur sa tànk dagg na fi ñaanlu ñaanlu nag li ko tax a baax ci mbir mooy la mooy xundu biir moo jàmm ju sax lu caay tegu ci ngeen door caay tegu moo tax professeur Daraay mi li fi lu rëy muy sa doxalin jàmm lal ko sa dem sa dikk lépp am sécurité la caay teglu la caay tegu ni ci teraanga door caay tegu yàlla yàlla def loolu ah, fii nga toog sa këra ndax li tax man sa kër say goro lañ ndax Alioune Camara mi nga xam ne moo si yow ñoo ko may jabar laata ngay agsi yëg na yaa ngi si yoon laata ngay agsi yëg na ne yaa ngi ci yoon kontaan na bég na ci sa yoon wi ndax sa xaritoo Alioune Camara mi nga xam ne mooy denc doomam te mu mu am fi responsable yu rëy yoo xam ne da si suyee jaamal ci seen événement religieux bi ñu fay def at mu jot mu siyaare seen borom jaamal bon fii nga ñëw Déthié Fall sa kër sa kër gor la sëriñ bii nga toogat tey lépp awa moom moo yor léppi awa mooy sëñ Modou Maam Cissé mu wuuti fi ay magam wuuti fi ay baayam yi dal kër diini yëpp moo leen dal ndax kër diini ñi nga xam ne ñoom la seen jur sañcoon parab ba xoote fa doxal fa ba lépp dikk fa seen doom yi leen fi doon jeex nañ seeni jur jeex nañ tey moo fi des yoru jaamal yoru baatu jaamal fu jaamal ak tey mooy kii mooy xalifa général jaamal muy dëkk la boo xam ne dëkk bu riche la dëkk bu naqati xam la dëkk bu naqati ràññee la ndax daanaka doo leen gis fenn dañuy bokkatu rek waaye lépp lu ñu tabax Sénégal nag seen loxoom ci biir moo xam ci côté diine ji la moo xam ci côté euh, politique bi la moo xam ci côté social bi la moo xam ci côté yëpp seen loxo ci biir ba tax na nag képp koo xam ne soxla nga réew mi sa tànk waru gar la nga ñëw fi saafante ñoom nga seet nag lan nga fay jëlee bu ëllëgee ndax wolof ne ni ji doy na borom xel bi ci des kuñ siiwar sa programme nga man de maa ngi la door gis tey waaye naw naa sa kàddu ndax rajo lay déglu seetaanuñ télévision rajo léegi la ñuy déglu waaye saa yu ne ñuy déglu président di ci faal mu wax doo wax lu soof doo wax lu yàq doo wax lu jaxase waaye képp ko xam ne xam xeltu kan nga wax danga xam ni kii li may wax xam na ko te am na fu mu jëm loolu ñu naw nañ li su baax a baax a baax kon na ñu ngi lay ñaanal yàlla ah yàlla moom mbiram noppi na su rëddee kenn mënatu far su rëddee kenn mënatu far yàlla na yàlla boole si ñi nga xam ne yàlla rëdd na leen waaw ci gàttal di nuyu nag ñi nga àndal ñëpp koo gis journaliste yi ni ñu toppee xam ne borom baax nga. fii moom nee nga fi waxal ndax sa kàddu jiitu na fii xale yi ñu mi dikk nañ fi wax sëriñ bi ne ko ah, dañu am gan boo xam daf ñuy seet ñu bëggoon nag balaay ñëw ñu ñëw ci yow siyaare la ba noppi ndaxte yaay borom jaamal mooy ne waaw waaw fii de ñëpp ko bokk. jox naa leen ndigal bu ñëwee dalal leen ko wax ak moom mu wax yéen ngeen déglu ko bu baax nag loolu moom joxe na ci ndigal bon ah, bi ngay dugg sëkk bi dem sa rajo li mu teg tabarkaal fàttali ko nañu bare bare muy xasaayu maam Serigne Touba nga xam ne kër gi ak waa kër Serigne Touba amuñu frontière benn lañu ndax sëriñ bi nga xam ne moo sanc fi 1910 muy jiiru Serigne Touba moo ko doon jàngal sa Mbàkke Kajoor moom it moo jàngal sa Anta Borom Gaawaan kër baayam loolu ak li nga dugg teg ci rajo bi ak kër gi benn benn kott lañ di bokk ko kër diine yi Sénégal yëpp boo demee kër Saaj Malick noonu nga dem dénk ko ngapparu muy waa kër Alaaji bu Saaxo alimentali Alaaji bu Saaxo jàng lu may bëri fii la ko jànge mooy ñee taxaw fee fii la jànge léppam bon nga xam ne kër gi ah, këru diina la kër bu yàgg la li daraay mi wax nag tabarakallah arrondissement ah, département américain waxuma sax département américain waaye région Kaffrine wala Sénégal loo fi mën a ut wala loo fi man a yëngatu soo ne demoon naa jaamal kooku mën a wax ci àddina bi dina ah, dem nga jaamal ak ah, kasa yow de def nga lu baax waaye du ah cam foofu la waay moo tax fii ku fi ñëw amal yaakaar liñ lay njëkk a wóolute mooy si sécurité ndax itam boo jógee ñëpp topp la oto yi topp la xal la la ci gën njëkk a wër ci gën a njëkk garand mooy sécurité oto du fël dara dara du ko fël jàpp ku xëy du xëy si jàmm ba ngoon joon ngeen wàcc traditionnel bi ba seet ngeen demaat foofu la avantage bi gën la avantage bi dalee te ku fi dikk mu jàpp nañu loolu da nga xam ndax ñaan gi fi borom def ak alxuraan ji fi nekk sax na loolu sax na bi bon monsieur le euh, président Déthié Fall am nañ kontaan ci yow bu baax dala béggee bu baax sa kàddu déglu ko tey rek déglu nañ ko ci rajo euh, nga wax wax yoo xam ne ku ko dégg dana xam ne kii de kilifa la ndax mosuñuy dégg wax boo xam ne ci rajo bi wax boo xam ne day déranger nit ñi wala wax boo xam ne dangay euh, kilifa dañuy tiit wala wax boo xam ne ko dégg na accam loolu moom dawlu la xam lu mën a xew waaye sa communication moom tabaarkàlla ñëpp ci bëgg ñëpp ci kontaan ah Dramé mii nag tey ñu ngi la ko gën a rukumbaale ko moom ndax professeur la boo xam ne am na taxawaay ci dund bi am na taxawaay ci njàng mi am na taxawaay ci lépp ku am communication yu baax ku am taxawaay la boroom xam-xam la